faslun li ab dog la alxaydu bërëg huwa moom addamu mooy deret ja alxaarij ya aji génn bi nafsi ak boppam min xubuli man bàyyikoo ci sawukaayu jigéen joo xam ne taxmil dana ëmb aadatan ci aada fii muddati xamsata xasara ci diirub fukk ak juróom yow man ci ay fan fa duuna xaa topp lu ko yées ilaa saaxatin ba ci benn waxtu min xayri wilaadatin ci ludul ak jur wala maradin du caageenu tawat mbërëk daañu ko wax reegal day deret joo xam ne yàlla bind jigéen bu tolloo ci waxtu yi nga xam ne ci la ko war a amee mooy koo xam ne buñ ko dee seet mën naa ëmb ndawewul ba ëpp magewul ba ëpp jigéen ci toll foofu daal dana faral gis deret muy génn ci sawukaayam ci dogalu yàlla nga xam ne am doom waralu ko wéré di waralu ko yàlla ak ko bind rek bu ëmbee nag moom la ci ëpp du gis deret ndax ñàkk ñàkk a gis deret sax tegtalu ëmb la teewul nag mën naa ëmb ba noppi gis ko waaye nag bariwul lool mbërëg moomu nag daa bari lu ci aju ci àttey lislaam yi ci wàllu jaamu yàlla gi ak ci wàlluy faseek iddaak laabloo yi demee noonu moo tax ñu koy tudd ci téere yi moom nag nee na lu yàgg-yàgg du ëpp fukki fan ak juróom xëy na mën na koo mat waaye du ko ëpp ba mu des nag ku ëmb ba noppi gis ko ku ëmb ba noppi gis ko moom dëgg la sax ku ëmb daawu ko gis waaye su ko gisee léeg-léeg mu dem ba am ñaar fukki fan mbaa mu dem ba am fanweeri fan mën naa néew lool nag li ki jekki-jekki ni sotee rek daal di jeex mën naa am itam waxtu mbaa ñaari waxtu mbaa benn bis mbaa ñetti fan daal di jeex bu fekkoon ne juróo ko waral moom dañ koy tudde dereti wasin bu fekkoon tawata ko waral ñu tudde ko dereti jàngoro waaye moom yàllaa ko bindee rek jigéen ji bu tolloo ci waxtu wam koy amee rek mu di ko gis fa aqalluhoo gën jaa néewum nag laa xadda teetub limite lahoo di ko ñeel bu dee ci wàllu jaamu yàlla moom xanaa bu dee ci àttee aju ci wàllu jaamu yàlla mbërëg ma mënees tu wax ne nangam muy gën jaa néewum ndax mën naa néew lool lool te du tee ñu àtte ko àtte mbërëg ba koo ko war a sangu ak la ci aju ci wàllu jaamu yàlla gi waaye nag bu dee ci wàllu xidda wala li ñuy wax laablu moom mën nañu wax gën jaa néewam ndax gën jaa néewam mooy faaw day mat bisub lëm mbaa lenn bis ñu door koo wëññi muy deret ju mat bu fekkee ne matul bis mbaa lenn bis kenn du ko wëññi mukk muy deret ju mat a mat bu dee ci wàllu idda ak laablu da nga jàng lu aju ci wàllu idda ak laablu bu soobee yàlla ka ak tari tóori li ki gën jaa yàggi laab gën jaa bari laab la war a firi waaye gën jaa yàggi laab rek lañ jublu daa wax ne gën jaa yàggi laab itam mëne su ko wax maanaam jigéen ji buñ ko seetee ci yoon ba ne deretam ji laab na ci yoon du wax ne bu amaatee nangami fan rek laab gi faaw mu war a jeex deret toppaat ci déedéet moom daal mënees naa wax gën jaa néewi laab moom lay wax naa wa ama aqallu tuhuri daal gën jaa néewi laab fa xam sa fa xashara mooy fukk juróom yow man ci ay fan maanaam buñ ko toppee ba ne jigéen ji laab na ci deret moom lu néew néew dina amaat fukki fan a juróom door a gisaat deret baa boo gisaatee deret dañuy jàpp ne jàngoro rek la waaye ci dëgg-dëgg bokkul ci dereti mbërëg ja gën jaa yàgg laab moom mënees ko wax ci téere bi yàllaay xam rek bu jigéen ji laabee lam cee tegaat door a gisaat deret waaye mën na ne bu laabee moom lu néew néew mu amaat fukki fan juróom door a gisaat deret baa bu ko gisaatee nu wax ne dereti jàngoro la wa amma aktharul xaydi daal gën jaa bari mbërëg fa yaxtalifu dana wóote bi ixtilaafil xoyadi ci wóoteeg way mbërëg ya maanaam jigéen ji bu gisee deret na mu yàggeeg moom dana wóote ci ni jigéen ñi wóotee fa in kaana ndem nekk na mu tada atan di kuy door a mbërëg mooy tey la ko mës a gis fa aksaruhu gën jaa yàggam dana xëy gën jaa bareem fi xaqiha ci àqam isa tamadat ne wéy na bihaa ci moom alxaydatu mbërëg ma xamsata xachara mooy fukk ak juróom yow man ci ay fan su fekkeen tey tey la masa gis deret kon deret te lu mu yàgg-yàgg ak moom mënta weesu fukki fan ak juróom su ko amee te jeexul rek nga xam ne kon jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko woor aka joteeg ka muy séyal ndegam soob na ko wa in kaanat ndem nekk na nag mootaa da tan di aji baaxoo mbërëg maanaam njëkk na koo def du rek tey la ko njëkk a def njëkk na koo def bañ xam ne bu ko masaa am nangam fan lay am jeexal kooku mooy aji baaxoo kon fa imma an taxtalifa benn mu wute xaadatuha aadaam am laa wala du wute ki nga xam ne moom def na ko defati ko maanaam bi yoon daal moom du tey la ko njëkk a def kon dañuy seet yoon ñoom weesu ba xam yëpp yemoo ab diir wala yemowuñ ab diir ñi ki mën naa muy koo xam ne def na ko yett yoon bàyyi yent te bu ca nekk ñetti fan la woon kon kooku aadaam yëpp ñoo yemoo mën naa itam nag muy koo xam ne yoon yam ko def yemowuñ am na ci boo xam ne daa am ñetti fan deret ji jeex am ci boo xam daa am juróomi fan mu door a jeex am ci boo xam daa am juróom benn ba juróom ñaar mu door a jeex loolu mooy aada ja wuute ku ci nekk am na àtte fa in lam taxtalif ndéem daaw lu wute moom aada ja istazharat kon mu wóorlu xalaa aadatihaa ci aadaam ja bi salaasati ayaamin ci ñetti fan maalam tujaawis li fekk jéggiwut xam sata xasara fukk ak juróom yow mën ci ay fan su fekkee yoon yow yeesu yëpp daal gis ca deret nam daan toll jeex rek yëpp yam niki benn bu ci nekk ñetti fan la am mu jeex musta weesu benn yoon ñetti fan kon day jàpp ñetti fan muy aadaam yoon bi mu gisee deret nag su amee ñetti fan te taxut deret ja jeex kon na wóorlu yokk ca ñetti fan kon na ci yokk ñetti fan yoo xam ne day jàpp ne daa ko yokk ci ñetti fan ñoom ko defee mu juróom benn mu jàppee bopp ñetti fan ñooñu ku toll ci mbërëg nga xam ne lañuy aaye ku mbërëg dañu ko koy aaye lu may nag daa nar a jéggi fukki fan ak juróom li ci bu fekkee aadaam dafa nekkoon fukki fan ak juróom moom bi yoon bu amee fukki fan ak juróom te taxul mu jeexit du ci yokk benn benn fan su fekkee aadaam dafa nekkoon fukki fan ak ñeent kon bi yoon bu amee fukki fan ak ñeent te jeexut benn fan la ci yokk bu fekkee aadaam dafa nekkoon fukki fan ak ñett kon bi yoon bu amee fukki fan ak ñett te jeexut ñaari fan dong lay mën a yokk ndax dañuy jàpp ne fukki juróom moom mu ni su koo weesu su ko naree weesu dañu jàpp ne jàngoro la wa in ixtalafan dem wute woon na nag istazharat kon mu wóorlu xalaa ak xalaa ak sari xaadatiha ci la ëpp ca aadaam ja kazalika naka noonee daa wax ne bu fekkee yoon yam gisan deret daa wute woon am na ci boo xam ne daa aman ñeenti fan jeex ci misaal am ci boo xam daa am juróomi fan jeex am ci boo xam daa am juróom benn fan jeex kon day jàpp lim bu ëpp mu juróom benn fan yi ba xam yoonam bi itam bu ko amee dana jeexam nit su ko amee tam jeex kon loolu baax na amul luñ cey wax su ko amee te jeexul nag ba tey mu yokkaat ñetti fan juróom benn bu ci yokkee ñett mu juróom-ñeenti fan su ñetti fan ñi jàllee nag te taxul nag deret ji jeex mu jàpp ne kon jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor aka def yëpp kon daal képp koo xam def na ko defati moom day topp rek aadaam bu amee aada ja maanaam bu fan yi amee deretam daal di jeex loola kon leer na bu fekkee fan yooyu am na nag ba noppi taxul deretam jeex mu yokk ci ñetti fan ñetti fan yi nag moom bu jàllee taxul deret jeex mu jàppee boppam rek ku amee deret jàngoro di jullee ko woor ak def yëpp waxee moom nag fii ayyaamil istizhaari ci fani wóorlu ga xaaidum attib aji bërëg lay amee ñetti fan ñu ko yokkuloo nag biir ba mu ko yokk day jàppee boppam atte ku toll ci mbërëg nga xam ne du julli du woor du def dara ci ñi aaye ku amee dereeti mbërëg fa intama daa ndéem soxna biha ak moom ilaa tamaami xamsata xamsata ba matu fukki juróom yow man ci ay fan fa xukkumahaa kon atteem xukkumu taahiri atteem aji laab la fii taw jiixi salaati ci jubale ko julli wa saw mi ak koor wa xadamil xadaay ak ñàkk fay ga wa ittiyaani saw ji ak dikkalu jëkkëram daa wax ne nag gën gaa yàggi mbërëg moom ndegam boobu yoon la ko njëkk dal ak sax bu fekkee def na ko defati ko wërtu wees fukki fan juróom moom ni ñu ko waxee kon nag fukki fan kon nag gannaaw fukki fan juróom bu deret dee génn da koy jàppe rek jàngoro ñu àtte ñu àtte ko àtte ku laab mu daal di sangu tey jullee ka woor aka def yëpp mu bañ a fàtte nag ne jamono yam tolloo gis deret sañu te julli sañu te woor waaye nag koor ga da koy fay julli ga moom du ko fay waaye koor ga moom da koy fay ndegam kooru farata la woon faslun li ab dog la wali tuxuri ñeel na laab ga alaamataan yaari màndarga al jufoofu benn benn ba moo di ak fendi fendi mooy wow waxuwa moom an tudd xila mooy bu dugalee almar atu jigéen ja xirxatun aw sagar fii farjihaa ci ab sawukaayam fa tax rujate muy génn jaa fatan mbir muy aji wow aji fendi mooy wow koŋ lay saxale xaa déddi nekk ci moom cheyun dara mi ne dammi ci deret nee na li xamal jigéen ne ko sa deret jeex na am na ñaari màndarga benn ba mooy mu jël lu mel ni aw sagar mbaa wëtteen dugal ko ci biir sawukaayam génne ko xool te gisul mu taq dara ci deret te tole ci ne kon deret ji jeex na loolu benn la ba ci des nag wal xasatu ak ñooy ga albaydaaw ga aji weex wax ye moom maawun am ndox la ab yadu mi aji weex raqiqun tey aji sew buñ ne sew rek mooy bañ a far yët yi moom dana dikk fi aaxiril xaydi ci mujjug mbërëg ma kamaayil xasati mel ne ndoxum sima wax ye moom al xasatu al jiru mooy sima al jiru mooy sima teg faru ñaareel bi wan jigéen ne ko sa deret jeex na mooy mu gis ndox mu weex mel ndoxum sima muy génn ci sowukaayam loolu bu dee génn rek na xam ne kon deretam jeex na wal xasatu xasatu boobu nag muy ñooy googu ñooy ga ab laxu moo gën a jot moo gën a wér lil moxtaadati ñeel aji baaxoo gis ñooy googu nga xam ne fa isaara at ndem gis na aljuhoofa fendi ga awalan ci njëlbeen in tasarat mu neggandiku al xasata ñooy ga li aaxir waxti ba ci mujj waxtu al muxtaar wala wuñu tànn ñee koo xam ne aada woon nag bu deretam daan jeex day gis ndox mu weex boobu kon ndox mu weex moom moo gën a wóoru ci jeexub deretam kon bu njëkkee gis jufoofu maanaam njëkk dugal morso sagar mbaa dara ci sawukaayam xool taqul deret du tee rek ndegam waxtu wa des na naxaar mujjug waxtu wa ba xam dana gis ndox mu weex même déet su mujj waxtu wa ñëwee te gisul ndox mu weex wi tam nag say ba mu doyloo fendi googu mu gis dal di gaaw sangu julli ci waxtu wa bala mu ko raw waaye nag koo xam ne daal moom aada woon na yaar yëpp maanaam léeg-léeg bu deretam day jeex day gis jufoofu léeg-léeg itam bu deretam day jeex day gis ndox mu weex mi daañu bëgg bu njëkkee gis jufoofu mu xaar ndox mu weex mi ba ci mujj waxtu waaye nag mujj waxtu ñëwee moom te gisul ndox mu weex ma it te comme gis na jufoofu rek jufoofu leeral naa ko léegi mooy jël aw sagar mbaa dara ni ki wëtteen dugal sawukaayam génne ko xool taqule rek kon bu gisee jufoofu na ko far doyloo rek daal di gaaw julli da nga àgg na si mujj muxtaar bi te gisul ndox mu weex ma kon bu bu wéy di ko xaar na daal di gaaw laab daal di gaaw julli waa amal mubtada atu daal kuy door a mbërëg tey tey falaa tantasiru du néggandiku alxasate ñooy nga intaara at ndeem gis na al jufoofu fendi ga awala ci njëlbeen ki nga xam ne bi yoon la njëkk a gis deret moom su demee ba gis jufoofu maanaam dugal morso sagar mbaa wateen sawukaayam xool dara taq ci rek tegtalu jeexu deret la na doyloo loola rek du aajowoo muy xaar ndox mu weex ma waaye ka nga xam ne nag moom gis na deret gisati ko te bu deretam masaa di jeex day gis ndox mu weex moom waaw kay kooku lañ waxan bu néggandi ko ndox mu weex ma ba xam dana ko gisam deet bu njëkkee gis ju foofu waaye nag bu ko néggandikoo ba ca mujj waxtoo it foofu la néggandiko ba yem waxal ma ati war na jigéen ji antan tasira muy seetlu tuxraxaa laabam nga xinda naw mi fanama tëdd nelaw wax xinda salaati sofi ak fa jullit suba ga nee na jigéen nag bu amee deret dañ koy digal ne ko booy bëgg a tëdd na nga seetlu ba xam laab nga am laaboo ndax nga xam ba xam timi sa gee war na la wala waru la jamono yu suba yu bëgg a jot itam wala jamono yu suba jotee na nga dem nemmi ko ba xam laab nga am déet ndax nga xam ba xam julli suba war na la am déet kon daañu ko digal yaari waxtu yooyu muy nemmi ko boppam ba xam laab na wala laabut wayam naxu dana tere alxaydu mbërëg ma asalaata julli wa sawma ak koor wa talaax ak pase wa masal mushafi ak laalub kaamil wa xiraatu alquraani ak tari alquraan wa duxool masjid ak dugg jàkka wal wata ak laal ga fil farji ci pay ma zamanal xayd ci jamonoy mbërëg ma wa baax dafa ak ci gannaawam xabla tufriha ci njëkk laabam nga bil maa yi ci am ndox nee naa nag jigéen bu xasee ci deret jooju ba kee deret yi jeex ba mu sangu araam na ci moom muy julli araam na ci moom muy woor ba tey jëkkëram du ko sañ a fase ba mu tolloo ci gis deret jooju bu ko fasee sax jamono yi gis deret sax ñu ñu forcé ko ci mu fayli ko te du ko sañ a bañ ba tey jigéen bu gisee deret jooju li fekk muy jeex ba mu sangu du sañ a laal ab kaamil du sañ a tari fa alxuraan ci aw làmmiñam waaye wax ji gën a wër nag mooy daañu ko may muy tari alxuraan ndax bañ a fàtte la mokkalam yooyu wax moo gën a wóor mais da nga jàngal fee ci wajawasu xiraatul quraani li xaaidin maxaafatan nisyaani ba tey ku amee mbërëg dañ koy aaye dugg jàkk romb rek jàll dañ ko koy aaye ba tey jigéen bu gisee deret jooju ka mu séqal muy ka muy séel du sañ a joteeg moom ci sawukaay war naa ormal rek la tàmbalee jumbax ba ci bëti moom daal ba kere dara jee jeex ba mu sangu lu bokk te loolu nag moom mën na koo laal moom ka muy séel waaye na ormal li tàmbalee jumbax ba ci bëti moom ba kere dara ji jeex ba mu sangu bu ñu nee jigéen bu tolloo ci gis dereti mbërëg mbaa wasin araam na jëkkëram fase ko te bu ko fasee yoon forcé ko ci mu fayli ko day fekk kat pase ma nekk pasem payli maanaam pase muy mën a fayli waaye bu ko fase woon ñetti yoon ñetti yoon jëkkër dafa war a jaaraat moo tax kon bu ko fasee ñetti yoon kenn du ko mën a forcé ci nga fayli ko def na lu araam rek te mënisu ca dara ba tey bu soxnaam tolloo ci ëmb wala muy kuñ ko may rek te jotiwut ak moom dara ak may rek fa dox ñooñu moom moom jëkkër ji mën na leen a fase te fekk ñu toll ci gis deret ndax ka nga xam ne moo ëmb moom iddaam mi ngi amee rek ci bu amee doom nga xam ne kon fase gi ci biir deret du yokk dara ci yàggug iddaam ki nga xamee ni dañ ko ko may rek yem ci waaye jotewuñ dara bu ko fase itam iddaw du ko war moo tax kon kooku bu tolloo ci deret it mën na ko fase du wàññi dara faslu li ab dog la an nifaas wasin huwa moom addamu mooy deret ja al xaariju ji aji génn minal xubul yi bàyyi ko ci sawukaay bi sababil wilaadat ci sababu jur ga da xayra saa it mbir moom du aji ëpp xalaa sikki na juróom benn fukk yow man ci fan deret wasin moom mooy deret joo xam ne am dooma ko waral am dooma tax muy génn ci sawukaay jigéen ja lu yàgg-yàgg na woon du weesu juróom benn fukki fan fa isa saara ndem ëpp na xalaa sikki na juróom benn fukki yow man ci fan rek fala tas tazahiru kon du wóorlu bu fekkee ne am na juróom benn fukki fan te deret wasin yu jeexut nga xam ne kon jàngoro day di sangu te jullee ko woor aka def yëpp bu neexee jëkkëram mu joteeg moom ndax jàngoro rek la waaye moom itam na mën naa gàtt lool moom itam ni ki mu am doom rek deret ji jékki-jékki sotti ku ne sottee daal di jeex tàkk fi saasa mën naa am itam ay waxtu jeex mën naa am benn fan jeex waaye nag lu mu yàgg-yàgg daal moom li ñu ko waxee du weesu juróom benn fukki fan bu ko naree ëpp rek jàngoro la wa xukmu damin nifaasi atteb dereti wasin fii maa ca la nga xam ne yam na axoo dana ko tere wa fiqtidaayihi ak ci sàkkoom nga alxus la ca ngaay xukmu damin xaydi mooy atteb dereti mbërëg mutlaxan ci lu mën di doon wallahu yàlla aalamu moo xam dëgg-dëgg nee na nag lépp loo waxoon ne moom la dereti mbërëg di aaye ka amee dereti mbërëg ba tey xamal ne moom ngay indiwaat fii ne moom la dereti wasin di aaye ka amee dereti wasin moo xam julli la wala woor la wala laal kaamil loolu yëpp ñoo ko boppale mbërëg da ko da aaye ba tey wasin da koy aaye ba tey ni mbërëg di warale ci jigéen ji bu deret ji jeexee mu sangu ba tey wasin it deret wasin noonu lay mel bu jeexee faaw mu war a sangu kon daal man ngaa jàpp ne atte yëpp ñoo ko bokk rek na nga ko xamee woon fee rek nga indee ko fii noona al baabu lii mooy buntu ba ab taani bi aji ñaareel fi salaati ci julli dafa waxan albaabu al awal fi tahaarati mooy bunt bu njëkk bi aju ci laab mu dugal nga ci buntu ñaareel bi aju ci julli waxiya moom julli ahadu arkaanil islaami moo di benn ci ponki lislaam alxamsi ya di juróom allëtti ya nga xam ne buniya tabaxeef na lislaam xale xaa ci seen kaw te shahadati an mooy seere ne naka lañ mbir moo di laa ilaha amul benn buur illallah ndire yàlla wa anna muhammadan ar naka muhammad xabduhoo jaamum baa wa rasuluhoo tey ab yonanteem wa iqaami salaati ak taxawal julli wa itaa i zakaati ak joxe asaka wa sawmi ramadaana ak woor ramadaan wa xajji baytillahi ak aj néegu yàlla ba alxaraami ba di bañ ormaal li ma ñeel ka nga xam ne istataaxa àttan na sabilan aw yoon ilayhi jëm ci moom nee na julli benn la ci ponk lislaam yi nga xam ne moo di juróom yii ca na ko addis bu indee ponk bi njëkk ci lislaam mooy seere ne yàlla rek ay buur muhammad ndaw la lu yàlla yónni muy benn ñaareel ba nag julli moo ci sës ñetteel ba joxe asaka ñeenteel woor weeru ramadaan juróomeel nag aj màkka ci ku ko man kon yooyu mooy ponk lislaam wasalaatu julli azamuha mooy gën jaa màgg seen ba'da shahaadateeni ci gannaaw yaari seere ya man aqaamaha ku ko taxawal faqad aqaama kon taxawal na addiina diine wa man tarakaha ku ko bàyyi faqad taraka kon bàyyi na addiina diine yéen mboolem ponk lislaam yi nag boo xasee weesu yaari seere yi boo xasee weesu gëm yàlla te seere ko ci xol bi daal julli moo gën a màgg ci lislaam nga xam ne ku sàmmoonte julli sàmmoonte nga ak diine waaye ku sàggane julli rek sàggane nga diine ci boppam wali wujjoo bi xaa ñeel na waram nga xamsatu shurootin juróomi sart nee na julli nag balaa war kenn juróomi sart yi mooy tax mu war ko al islaamu moo di ak jullit maanaam dugg ci lislaam koo xam ne koo xam ne duggagul ci lislaam dañuy sàkku ci moom mu dugg ci lislaam njëkk door a julli waaye ndegam dugg ci lislaam rek bu jullee itam du baax nga xam ne kon buñ nee ab yéefar julli war na ko itam mooy bu ëllëgee daañu ko xisaab dugal ko ci ñàkk gaa julli rek waaye ndegam dugg ci lislaam moom bu jullee itam julli nga du baax wala buluux aku kàllafe ak kàllafe mooy tax julli war waaye koo xam ne gone la kàllafe gut julli waru ko wal xaqlu ak xel ànd ak sagmam ci la koo xam daa dof wala mu xëm ba waxtu wa jeex kooko julli ko wàcc na ko koo xam nag moom daa xam nag te bu muy ximi waxtu jeexu dañu xool li des ci waxtoo bu fekkee laab am ci baraka xaj na fa julli nga war ko bu fekkee laab am ci baraka xaju fa julli nga du ko war ba tey dox bi it boobu àtte la amee li ki bu fekkee dafa dof doon say bu say ma jeexee dañuy seet li des ci waxtu wa bu fekkee ne laab am ci baraka xaj na fa julli nga war ko bu fekkee laab am ci baraka xaju fa julli nga du ko war wartifaaxu damil xaydi ak yëkkatikuk dereti mbërëg wan nifaasi ak wasin ba tey bu dee jigéen seet ci dereti mbërëg mooy li ñuy wax reegal baax weesoon nga buntam ak seet ba tey ci dereti wasin dereti wasin mooy deret yoo xam ne am doom moo ko waral yooyu yëpp nag seet ci mooy tax julli war jigéen ji waaye jigéen bu ko see am dereti mbërëg mbaa dereti wasin rek julli waru ko te araam na ci moom sax mu def ko waxudooru waqti salaati ak teewu waxtu julli wa ba tey balaa jullee war a waxtu wa daa jot waaye bu fekkee ni waxtu wa jotut kon julli du war dégam amoo amewoo borom julli rek te ak julli jotagut kon genn julli waru la wata ji bu dana war bi awal li waqti ci njëlbeen waxtu wa wu jooban ak war mu wassaan guddi guñ yaatal maanaam saa yu waxtu julli jotee julli war na waaye nag war gu yaatu la war gu yaatu la mooy kenn du wax ne faaw nga jóg fi saasay saasa balaa àgg ci faaw nga jóg fi saasay saasa rek moo ñu dema dem ba nga xam ne des ci waxtu wa waa julli rek moo fa des su boobaa nag moom war na war gu xat ndax mën laa ñàkk a jóg ndax doo ko sañ a génne waxtu wa doo ko sañ a génne muxtaar mi sax ci sa coobare rawante na nag nga génne ko daroor yi wa ci sa coobare loolu boo ko defee lu mu ci mën doon rek bañ a julli ci waxtu wa moom bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg faman jaxaada ku weddi wujjoo baxaa waram nga aw shay'an wala dara min waajibaatihaa ci ay warteefam aw shay'an wala dara min arkaanil islaam yi ci ponk lislaam alxamsa téeri juróom fa huwa moom kaafirun ab yéefar la murtaddun te aji murtad la yustataa bu def na ko tuubloo salaasata ayaamin diirum ñetti fan fa in taaba ndéem tuub na kon baax na wa illaa bu fekkee ne tuubul na otti la kon reyeef ko maanaam julli lu war la ci ni ko alquran ak hadis ak mboolem borom xam-xam yi dogoo ci ne lu war la kon nag ku weddi warug julli mbaa mu weddi dara ci la koy tax a baax mel ne laab ga wala dara ci farataam mbaa sax mu weddi leneen ci ponk lislaam yi nga xam ne yu sax la rek ci gàttal daal képp koo xam ne wedd na ci lislaam loo xam ne lu fës la ñëpp xam ne ci la bokk rek te fekkal mu nekk ci waa lislaam dañuy jàpp ne kon léegi moom murtat na mooy génn na ci lislaam te lislaam moom da ngay ñëw ci sa coobare waaye nag boo xasee dugg ba noppi doo sañ a génn daal dem noonu moom koy boo wax gannaaw boo xasee dugg ci lislaam ba noppi kay moom boo waxee lu la ci génne mbaa nga def ko dañ lay tuddee ku murtat nga lay wax ne la nag léegi tuubal may la delab ñetti fan ci nga tuub delluwaat gannaaw delluwaat ci lislaam nañ ko bëggee bu tuubee ci diiru ñetti fan ñi baax na bu fekkee ni tuubul nag ñu rey ko rek kon nag weddi waru julli bukkiwul ak nangu ne julli war na ba noppi te tàyyeel ba doo ko def ku weddi waru julli moom jàpp ne julli warut dañuy jàpp ne moom génn na ci lislaam diirum ñetti fan bu tuubee baax na gëm ne julli war na di ko def bu ñetti fan ñi matee nag te nanguwut a tuub ñu rey ko reyu kéefër reyu kéefër mooy kenn du ko sang kenn du ko sàng kenn du ko jullee kenn du ko suul ci armeel jullit ña kenn du ko donn mooy alalam day dem alalam ña ko war a donn ba tey duñu ko donn ndax donnante balaa am ngeen bokk diine te moom ñi ngi ko rey ci kéefër mu tekki nag koo xam ne moom nangu na ne julli war na waaye daa wax ne dafa tàyyeel moom ba bu ko def wa man aqarara ku saxal bi wujubiha ci warug julli wam tanaxa te mu bañ min fi aliha ci ak defam um tusira kon neggandikoof ko ilaa an yabqa jëm ci ba des min waqtiha ci waxtoom wa ak daroor yi way daroor yi miqdaaru rakxatin kem ab rakk kaamilat mbi aji mat fa indam yusal li ndem julliwul rek xoti la reyef ko bi say bi ci jeesi xaddan reyub gétam kee nga weesu moom daa weddi woon waru julli weddi waru julli moom ak murtad la mooy génn ci lislaam la kii nag moom gëm na ne julli war na waaye daa wax ne moom dafa tàyyeel ba du ko def kooku dañ kooku dañ koy bàyyi ba waxtu julli jot ñu taxawal ko ne ko jullil di ko ko sant di ko ko sant muy gàntu ñu koy sant di ko sant ba nga xamee ne daal la des ci waxtu ci mujj ci julli ga muy daroor yi julli ci benn rakka bu sotti sax xawatuta mën a nekk su boobaa nag moom bu nangoo julli baax na bu nangoo te julli ñu rey ko suñ ko rey reyub jëtan la maanaam dañuy jàpp ne ki ñu rey ab jullit la daa def rek luñ ko war a rey ñu rey ko waaye teewul ñu àtte ko àtte jullit nga xam ne moom des na ko sang des na ko sang des na ko jullee des na ko suul ci armée lu jullit ña waaye nag way yu sell yi dana jullee xale yi ci moom xayru ahlil fadli ku dul nañ ngëneel wa salaahi ak mbaax ak yiw mooy salaah waaye nag bëgguñu buñ ko dee jullee waa ju baax teew fa ak mbooloo mu bari ñoo bëgg rek ku tàyyee la julli bañ rey ko daal ñu woyofal rob ba waa ju baax bañ faa teew mbooloo bañ faa teew ndax ñu bari moytoo def li mu def way dufanu def na ko suulit fii maqaabilil muslimina ci armée li jullit ña du tee ñu suul ko fa ñu suul jullit ña ndax daa ñaaw lislaam rek waaye ci dëgg-dëgg ab jullit la wala yutt masu deeful maasaleeg suuf mooy deesul yemaleeg suuf rek xabruhoo bàmmeelam ba maanaam bàmmeelam duñ ko sëkk rek ba mu yem ak suuf si ñu bàyyi déedéet xam nga doomi aadama bu ñu koy suul dañuy yëkkati jal ba benn ñu def ko lu mel terrasse côté yëpp yemoo mbaa bokk ñu jël digg ba mu gën a yëkkatiku mu doon ñu wax jegéenal moom itam na buñ ko suulee daañu yëkkati bàmmeel ba defal ko noonu ndax ci dëgg-dëgg ab jullit la daa ñaaw julli rek ak jullitam moo rafetul nag ndax tàyyee la julli bañ rey ko rek waaye teew ko nekk jullit mooy kii taayi la julli moom buñ ko rey itam du tey ña ko war a doon doon ko ndax moom jullit lañ ko jàppee wala yuqtalu def ko rey bil faa itati ci julli bi aji faat bu amee julli ku ko raw nag goo xam ne ngu koo fay rek ah kon dañ koy bàyyi rek waaye kenn du ko rey ci kaw julli goo xam ne da koo faat te nangu koo fay wa yu'maru def na digal asabi yi gone bi xaa ci julli li sabbi sini na fa juróom ñaari at wa yudrabu te dee si ko dóor ala tarki xaa ci ak bàyyam julli ga darban ak dóor xayra mubarrihin boog du aji jéggi dayoo isa balax ndem dot na ashra sini na fukki at nee na gone bu amee juróom ñaari at dañ ko digal julli yooyu jamono nag bu bañee itam du jara dóor bu amee fukki at nag moom dañ ko digal julli te bu bañee nañ ko dóor dóor yoo xam du ëpp dana mett rek ba mu xam ne dañ koy sant lu yitteel la waaye du tax nag mu dama am yax mbaa mu xotti di ñaawal deru yaram fas lu li ab dog la asalaatu julli ga al mafrodatu kadi guñ farataal xamsatu juróom la julli farata yi juróom lañu ak zuhru mooy tisbaar wal xafru ak takkusaan wal maxrib ak timis wal xishaaw ak gee wal suuf ak suba